sëñ Abdou li nga xam ne ci la sëñ Abdou Khader di teeru Abdou Diouf. waaw. sëñ Sam Mbacké Ndoulo mooy néew. gan ñaa ngi nii ci ngan gi ci kër sëñ bi. ci résidence Cheikh Ahmadou Bamba. sëñ Aliou Mbacké ibnu Cheikh Mamadou Moustapha. xalifa général Daaru Khoudoss. moo ñëw ci ngan gi fii ci kër Cheikhul Khadim. yal na taxawaayam yàgg yàgg ci gannaawam ci barke Sëñ Tuuba jërëjëf Mbacke sëñ Mahmadan Mbacke xalifa sëñ Masamba ak sëñ Moussa Mbacke doom rakkam ak sëñ Cheikh Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Faty Khary Mbacke jërëjëf Mbacke Mbacke Aliou ibnu Cheikh al buur ak njàpp nag ibnu Cheikh al jërëjëf Mbacke taxawaay yàgg bala is jërëjëf Cheikh Sali ibnu Cheikhul taxawaay bi yàgg bala is Mbacke jërëjëf bala is am na sa taxawaay yàgg Mbacke Mbacke ibnu Alaaji Fallu Mbacke moo nekk ni jërëjëf Mbacke ànd ak sëñ Mouhamadou Mamoun Niang ki ibnu Alaaji Fallu Mbacke ki mooy sëñ Jiili ibnu Alhaaji Mouhamadul Fadal Mbacke mooy xalifaab sëñ Fallou Mbacke yal na yàlla yàggal ab taxawaayam ci kanam njaboot gi mi ngi ànd ak alaaji Baara Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Fadel mooy rakkam sëriñ Ibrahima sëriñ Ibrahima Mbacke ibnu sëñ Abo Mbacke ibnu alaaji Fallou Mbacke kooku waaw sëñ Abo waaw Alaaji Abdou Xaadir Jiili Mbàkke moom sëñ Fàllu Mbàkke mu ngi noonu du toog ci wetu magam sëñ Moodu Buso Mbàkke waaw sëñ Moodu Xabbaan Mbàkke ibnu Alxaaji Muhammadul Fadal waaw waaw waa kër Alaaji Fàllu Mbàkke dongo yu mag yi ak Alaaji Murtala Mbàkke moom sëñ Fàllu moo nekk nii taalibe bu nangu la ci kër gi moom i tamit di sunu wëllëri waaw jërë ngeen jëf Mbacke. jërëjëf borom yàggal ko suñu kanam bu ànd yàgg topp ci gannaaw mu yàgg nu jiite sama borom def ci jàmm ak salaam ak xéwal yéene seen bu na ko yàlla yeggale ci dara yi sëñ Tuubaa Mbacke lépp lu yéene ci yoon na ko yàlla may wér fan gudd wàllu sa faw ci dara yi sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo fi day ne yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf kàddu yu tedd yooyu ngeen dégg Alaaji Baara Mbacke ibnu Alaaji Fallu Mbacke moo ko ci jor jokkali fii mooy kër Seexul Xaadim kër gu mag gi sëñ mbàkki soxna loo woote bi nga xam ne nii sëñ Abdou Xaadir Mbàkke ibnu Seexul Xaadim moo am gan gu mu fonk muy Abdou Diouf président de la république sëñ Abdou Xaadir woote ne nañ ko ko teerule si waa Daaru Xuddoos nag ñëpp ñëw nañu sëñ Mbàkke soxna loo mi nga xam ne njiit la fa mi ngi nii toog ak mbokki taalibe yépp sëriñ sëñ Modou Kara Nooré nii ngi nii soxna Lo ñoo bokk noonu nekk noonu di nuyoo waaw mboolem waa bokki daaru Xuddoos kenn desut waa daaru musti ñoom ñëpp ñëw nañ ko ki taxaw di nuyoo mooy sëñ Modou Kara waaw. Modou Kara Mbacke ibnu Cheikh Ousmane Mbacke ibnu borom daaru moo toog nii ci ngan goo xam ne dañ koy tertu président Abdou Diouf ci kër Serigne Touba gi. moom ngeen jàkkaar lool ni im na sëriñ Basiru im na sëriñ Tuba ki ci kim dendal mooy sëriñ Saliou moom sëriñ Mourou Moustapha Mbacké te nekkoon ambassadeur moom ngeen janoor lii ñooy waxtaan ni sëriñ Saliou moom sëriñ Mourou Moustapha Mbacké sëriñ Moustapha Basir im na sëriñ Basiru Mbacké ci teeru bi ñuy teeru président Abdou kii ngeen gis mooy sëriñ Abdou Hakim di rek ci sëriñ Moussa Basirou sëriñ Abdou Hakim moo nekk nii ñii ñëpp ci ak sëriñ Tuubaa yi sëñ Modou Mahfouz sëriñ Moustapha Abdou Khadir Mbacké taxaw noonu ñu jàkkal sëriñ Abdou Assis Baara ak sëriñ Aliou ñoo nekk nii sëriñ Modou Boussa Mbacke borom na xam mu xam Baay Fall yi di ebootuk maam Cheikh Ibrahima Fall ngi ne ak sëriñ Cheikh Khady Gueye sëriñ Modou Aminata moo nekk nii ak sang su baax si kër rakkam sëriñ Modou suñu am di Fall mm, am di Fall Khady suñu Assis Fall suñu suñu Cheikh Jëmb Fall euh, ak suñu Cheikh Liggéey am di Yacine Fall am di Yacine Fall ak ak sëñ Assane Fall moom sëñ sëñ Moustapha Fall. jërëjëf ñooñu mooy njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall. sëriñ Saliou Mbacké moom sëriñ Touba. sëriñ Saliou fii ci kër sëñ gi ngir. teeru président bi Diouf suñu Saliou Mbacké moom ngeen gis noonu ñaan suñ Tuubaa walla yàggal bi teew ci bis bi sëñ Abdou Lahad Mbacké moo ko